asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbooloo mi ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam a di leen balo ak di leen baal ginnaaw bu ñu jullee ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi wax jërëjëf sëriñ Touba fii ci Touba xam ngeen ni ndaje mi li ko waral suñu jataay bi li ko waral mooy conférence. bi jigéeni Lat jóob yii féete ci Touba ak góor ñi di def xam nga Touba daam aada baaxoo diine rekk lislaam rek la ko boroom sampe yàlla dogal na nag Lat jóob di mbokkum taalibe dëkk ci dëkk bi ah am kóllëre gu yaatu ak waa dëkk bi cofeel gu dox seen diggante gu yaatu ñu koy màndargal rekk ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru tubaab ñu war a am conférence bu mag bu ñuy def fee ca mbaarum daaru Khuddoos muy lawaawul hamdi ñu ci woo rek ñëpp di ñaan yàlla fekkeloo ñu ko jàmm ñu àggale ak jàmm te yàlla nangul ñu suñu koor ak jaamu yëpp te jéggal ñu suñuy bàkkaar waaye li ma ci ñaan rek mooy tàllal nañu ñëpp loxo. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. di jiital ci nuyoo bi nag sama mbokki jigéen ñi bàyyiwuma kenn nag ñëpp saabal bu ñëw fii rekk ngir jëmmi Lat Diop muy ku yàgg ak ku bees ñëpp lañ tàllal loxo ndax Lat mbooloo la soxla Lat yaatal la soxla kon nun ñi nga xam ne noo fi nekk tàllal nañ ñëpp loxo conférence bi nag bàyyiwuñu kenn kuy wax asadu an laa ilaaha illa rek woone la mbaarum daaru xudóos damaa sonn nag waaye ñëpp laa woo bàyyiwuma kenn ndax boo limee da ngay juum bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen lii nag du bisub kenn ak sunu bisa nun jigéen ñi nag nañ takk bu baax nag ndax lépp nag jigéen ñi la kon bu kenn des bu kenn ne diwa ko moom kenn moom ko nun ñëpp noo ko moom nun ñëpp lay sunu bis ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi nuyu ñëpp ñi fi teew rawatina boroom kër gi ñu jiital nuyoo bi ci moom di nuyu lat mi nga xam ni moo waral lii lépp di nuyu suñu coordinateur Cheikh Pouy di nuyu suñu présidente yaa jooja ñaan jël nuyoo jigéen ñëpp nag teg ko ci loxoom di kontaan nag ci bis bi ndax ñun amul lu may ku nu sagal te sagal nanu ndax 8 mars ba la ñu a sagal sagalaat nu tey jii ci conférence bii nga xam ne ñun ñoo ko organisé suñu bopp muy weeru koor wii ñëpp di ci taamu jaamu yàlla ak def lu baax moom mu dolli nu dikk fekk nu ci li nekk mu dooleel nu ci kooku ñoo ngi ko ci sant ñoo ngi ciy gërëm man nag maa ngi woo ñëpp góor jigéen bàyyiwuma kenn di woo xale yu góor yi di woo jigéen ñi di woo nag sama yaay yi nga xam ne ak mbooleem daayira yeeg ñi nga xam ni bokkuñu ci Lat Diop tey nekk ay opposant ak ñëpp ñoo ngi leen di woo ñu ñëw teewal ñu ci bis bi ndax lu baax rek lañ ci bëgg képp kuy tudd baatu bi yàlla rek woo na la ci bis ñoo ngi kontaane lépp nag di rafetlu lépp. Ah, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu waajur yi nga xam ñoo fi toog nga xam ne suñu yaay lañ ak suñuy pàppa ñii di suñuy tonton mais tamit di suñuy mag ndax dañuy dégg ñu ni mag mooy dooleel mag mooy xelal ndaw waaye ndaw tamit mooy dooleel mag donc ñoom bu ñu organiser lu toll nii organiser ko fa nga xamante ni mooy ci centre Touba woo ñu ci tàllal ñu loxo. ngir ñu ñëw jàppale leen ci lépp luy organisation loolu dañ ciy sant bu baax baax parce que seenum xel moo demee noonu donc ñu nag lépp li nga xamante ni si nii ñoo ngi ciy xaar muy ci côté organisation ci côté taxawu bés bi ñu leen di ñu leen ci rassurer te di dalal seen xel di leen wax ne ñun jeunes yi pare nañ te takku nañ ngir jàpp ci bës bi ba nga xamante ni si nii lépp loo xamante ni moom lañ ciy séntu dinañ ci am lu kawe su njort li jëm ci wàllu président nag yaakaar naa dañ naan ko gàcce ngalaama parce que Euh, wax ji bëri na coow li bëri na waaye moom ci li moo ngi ci li mu war a nekk li mu war a nekk mooy lan jiital ñu di ñu xaar te ci biir jiital boobu noonu nag maanaam fi mu xaar mooy ñu koy proposer activité te loolu noonu yaakaar naa ne conférence bi ci logique la ci ndax ay jigéen bu ñu toogee ba weeru sel wi ñu ne dañuy organiser conférence euh, jiital ci président Lat Diop loolu yaakaar naa lu am am solo la ndax dëkk bi moo bindoo noonu donc nag li ma ciy lancer en appel mooy massification bi parce que conférence bi chaque jour dama koy rappelé nee naa bu ñu defee conférence ba pare ñi nga xam ñoo xamal Lat Diop rek xam Lat Diop yaakaar naa dañuy échoué donc képp ku nekk fa nga nekk donte kenn koo xam ne gis nga ko xamul woon Lat Diop fexeel ba jox ko ci tissu yi mu sol nga ànd ak moom yóbbu ko loolu day des si boppam nga xam ne heure bu ñu waxatee Lat Diop dina am loo xamante ne au moins moom lay rappelé woo ngir mu mën a jàppale président. waa asalaamaaleykum man Adja Jama maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. Euh, di commencé nuyoo bi nag ci suñu kilifa sunu lépp muy Pa Sadibou Diouf mii ñu nekk ci këram di ko teg ci loxoom mën naa ne bu ma ko tuddee mën na ma ko tegal ci loxo ñëpp bu dee ci wàllu jigéen ñi maa ngi koy teg ci loxo sunu yaay jooja ñaan mi nga xamante ne yàlla dogal na ne mooy présidente bi ñu teg ko ci loxo mu tegal ñu ko ci loxo jigéen ñëpp jeunesse bitim ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ndaxte mënoo ne damay defarum réew te tuddoo la jeunesse kon euh, conférence bi nga xamante ni moom la jigéen ñi takk takkawoo àndandoo ko ne danañ ko def fii ci mbaarum Daaru Xuddoos muy jigéen ñi Lat Diop ñu ngi nuyu nag président Lat Diop di ko sant ci lii nga xamante ne nangul na ko jigéen ñi nga xamante ne ñoo bootu ci kawam ak ndaw ñi ndaxte mënuñoo dem tam bàyyi ndaw ñi te thème bi dañ ne jigéen ñi la ak ndaw ñi ñoo xamante ne moom la ñu war a def fii ci mbaarum Daaru Xuddoos pour thème lan la jigéen taxawaayam ci lislaam te jigéen taxawaayam dafa am doole lool ci lislaam ñaareel bi ndaw ndax damay faral di wax ne ndaw ñi bu leen wax toujours bu ne la magi démb ña defoon ndax mag ña ban koy def ak di jaayante ci wàllu lislaam ay ndaw lan woon di daw ba tey lislaam ak si fii kon lépp lu nga xamante ne su ma nga ko ci àdduna bëgg mu àgg boo ci jiitalee jigéen ñi jiital ci ndaw ñi suñu borom mën na cee def sutura kon ndaw ñi ñu ngi leen ciy tàllal loxo bu baax a baax ndax xam ne ku jàppale ndaw jàppale jigéen noppal nga mag ñi kon ñu ngi woo ñëpp comme ni ma koy waxee toujours rek ñun ñëpp lañu soxla ñi képp ku nekk fii ci Touba suñ sañoon derrière Lat Diop ngay nekk parce que Lat Diop murid la taalibe la jullit la bokk na ci dëkk bi jàppale na tim jigéen ñi dëkk te am na ambition pour jàppale leen xañ na nag daanu dajul suuf ak li mu bëgg defagu ko mais nar na ko te bëgg na ko ci lim ñu wax nee na dina ñëw fii pour jàppale jigéen ñi ci bu baax a baax kon nag ñëpp nañ ko tàllal loxo ci ku bëgg lu baax te yaatalal ko ndax yaatal bi nag mooy lépp li ma bëgg mooy maire jooja pasadi bu ak jigéen ñi fi toog ñëpp kenn ku na xamante ni nekkoon na ci Lat Diop te nekkatu fi nan dem jël suñu tànk doxi ko woo ko téléphone sensibiliser nit ñi boole ñëpp ñu ñëw ñu xam ne lii mooy ànd ndaxte nag ñun sëñ Touba defal nañu lépp kon yaakaar naa ba na amee sëñ Touba namatuñ lenn ku nekk la nga am sa kër yaa koy defal sa bopp kon leen bëgg mooy unité bi ñu booloo xam ne leen bokk xajul ci kopp mënuñu koo séddoo ndax Ahmadou Mbacke mi ñu bokk moo ëpp lépp yàlla dogale te kii ñu àndal lim ñu woo passadi bi woon ci muy ànd kóllëre kóllëre nag sama maam dafa am lu ko sëñ Abdou Lahad waxoon dafa ànd ak sëñ daam atta sëñ daam atta ne ko Ibrahima mu ne ko saw mu ne ko li ma bëgg mooy kii de sama kóllëre la mu ne ko kóllëre ndax xam nga mooy lan mu ne ko kóllëre yàgg borom ba yomal xiyaam kon suñ kóllëre gi damaa bañ ñu bañ ko sàkk ci politique te sàkk ko te xam ne unité lan liñ bokk moo ëpp lépp mooy Serigne Touba nan àndandoo doon benn jàpp leen président la Diop ba keroog muy toog palais de la république ñun loolu lan soxla wante ay division ay yeneen soxlawuñ ko loolu daal moo ci doonoon sama kàddu te xam ne bis bi woon nañ ci ñëpp nan ko def ci jàmm ak dal ta xam ne nag Touba dafa am lu mu laaj mbaarum Daaru Xuddoos am lu mu laaj rawatina ci diggu xolu Touba lañ koy defee diggu xolu Touba nag buñ fa demee nan ànd ak yar nan ànd ak teggin surtout nanu ànd ak akuk dal ak civilisation ba nga xamante ni buñ duggee buñ fa digg buñ fa génnee keneen ku fay dugg ku nekk référence la waa Lat Diop di doon ci ñoom. kon ñun danoo war a jàngale lu baree bari te cadre politique am na stratégie buñ jëloon ba commencé ko te ngir yàlla loola buñ ko yàq mooy ñëpp dañu xool ci waa kër Lat Diop unité bi ñu doon ànd bin ñu doon kon loolu bu ko saytaane manal ba koy dindi nan ànd unité doon benn bloc ñun ñëpp ànd. ñëpp waxee rek ci nuyoo bi. kon jaaral naa ko fu ko ñeneen ñi jaaraloon euh, di sant aussi euh, jigéen ñi parce que depuis affaire bi dox ba léegi am na ci ñoo xamante ne jarul may lim tur waaye boobu ba léegi yenn ñu fanaana ñu kon ñooñu ñun ñëpp amal nañ leen euh, ab ab ab ab jërëjëf kon jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne boobu ba léegi toogu leen gis nañ ko kon thème bi ñëw fu mu war a ñëwee coïncider ak benn soxna soo xam ne dafa mbokk ci yéen nekk ci hôpital am ci ay jafe-jafe bu ñàkk ci bakkanam ñoo ngi koy jaale jigéen ñi ñëpp di ko ñaan aussi di ñaan président ak son ministère de la santé loolu dakk ci biir Sénégal parce que jooyu jigéen ñi la kon ñoo ngi koy transféré waa Sénégal yëpp jaarale ko ci son président Lat Diop mi nga xam ne Euh, politique boolewu ak moom doyen bu ji nga xam ne sama kilifa sama lépp la xam na ci xam na ci dara politique boolewuma ak lat euh, kon euh, conférence bi ñoo ngi comme ni ko ñëpp waxee ndaw ñi jigéen ñi góor ñi mag ñi ñeen ñëpp nañu xam ne liwaawul xamdu lañ ko defee comme ni ko Cheikh Sadibou Diouf waxate mu nekk aussi benn site bu ci tuubaa boo xam ne c'est un site historique parce que Cheikh Moustapha euh, taawu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul yaakaar naa foofu la la la la domicilier kon su ngeen ñëwee seen première édition ngeen yóbbu ko foofu historique boobu yal na leen topp ba lu ngeen bëgg ngeen am ko ci barke Cheikh Issa Diène jërë ngeen jëf. bon lu conférencier mu ngi koy euh, conférencier bi sëñ ahmadu jong euh, sëñ euh, Ahmadou Bass la Ahmadou Bass mooy conférencier bi ñëpp xam ko ci biir Sénégal ci wax yu muy wax ci ci Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ak kenn ku ñuy wax Cheikh Ibrahima Diong mu sopp maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine xam ngeen ne aussi conférence ci biir Touba ni Cheikh Ahmadou Bamba te waxoo Cheikh Ibrahima Fall loolu mënul ne kon looloo tax bu ñu nee si comme ni ñu waxee ne Mouhamed ñu ne alayhi salaatu wa salaam ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne Xaadim Rasoul suñ ne Cheikh Ahmadou Bamba wal nañ cee teg Babul Mouridine de Cheikh Ibrahima Fall. kon ñu ko ci woo aussi euh, teewaay sakku nañ ci teewaayu Cheikh Ibrahima Diong bu sopp maam Cheikh Ibrahima Fall ak yaa Seyda yaa Seyda moo xam ne jigéen la comme yéen jàng bu toll fu mu toll jàkkaarloo ak jigéen ñi yàq parce que fu jamono toll jigéen ñi dañ leen a war a delloo seen ak parce que yàqu-yàqu yi bari na te jigéen ku ñu war a sagal la ku ñu war a respecté la ku ñu war a tabbal baat ju ñaaw ci deram la te daa mel ni ndaw ñu jógtee nañ lu jógtee nañ loolu aussi ñu lancé message ndaw suñu retourner à la retenue yar seen bopp yar seen kàddu ci réseaux sociaux yi ak fépp ngeen jëf waaw programme bi nu ñuy demee mooy euh, mise en place bi à partir de dix heures la à de dix heures ñu def mise en place yi gars yi recevoir gan yi yaakaar naa am na benn comité boo xam ne nii dañ koy tànn ngir jeunes yi ak euh, jigéen ñi euh, euh, ñu ñu ñu ñu gérer ko ndax xam ne aussi Touba dañ fi bañ lu ci ëpp jaxasoo góor ak jigéen kon am na ñaari commission boo xam ne day jóg kii commission ndaw ñu góor ñi la pour recevoir ñu góor yi leen seen bu ñu war a toog boo xam ne jigéen ñi la parce que pour ñu yóbbu jigéen ñi seen place parce que Touba dafa particulier jaxasoo góor ak jigéen yi aussi ñu bàyyiwaale ko xel léegi suñ defee mise en place bi Euh, conférencier bi njëkk yaakaar naa su mu juumul mooy Cheikh Ibrahima Jong sopp xaadim euh, sopp euh, Cheikh Ibra Fall ndax yoonu murit suñ ko waxee Cheikh Ibra la tax yaakaar naa ne su génnutoon ak suñu wënutoon Cheikh Ahmadou Bamba lu ñu xam ci moom yëpp kon duñ ko xam léegi su ci defee ñu toptali yaa Seyda Jaxate suñu suñu ñëwee ñu toptal ci Cheikh Ahmadou Bass ju ci des xëy na day am ay kàddu yu ci nekk mais lu ñu wax ñoom suñ jullee tisbaar ñu mën a tas jeetaay rahmaani rahim allahumma salli ala sidina Muhammad kon maa ngi nuyoo di siyaare di siyaare nag ñi fi nekk ñëpp bàyyiwuma kenn da nuyu suñu baay Sadibou moom it da ko jox nuyoom ak wàccuwaayam da nuyu Cheikh Pouy da ñu bokk liggéey bi yëpp da nuyu suñu meer jooja mii nag xam ne dafa nekk suñu yaay njaboote ñëpp te bàyyiwut kenn bëggul kenn mer bu sañoon bu xëyee buy wax ñëpp lay wax kenn ku ne mu jaar si kon xam nañ ne nji liñ toog ba tekkal ko per jooju ñu ànd nañ si ndax man soxna Arame Mbaye kontaan naa si ndax département Mbacké te président la ju bu fa tegee soxna Arame Mbaye ñu ne yaatalal may daw te fii ma toll nii da wax a yéen def naa panel boo xam ne ñu ngi koy wala jom national. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mboolem ku fi nekk rek jigéen ñi di nuyoo góor ñi macha allah di nuyu ji fab nuyoo bi di ko teg ci loxol sama kilifa gii toog. di sama mag di sama lépp di saadibu ñuy nuyu sunu kilifa gu mag gi fi nekk sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool balay sa te wér di ñaanal sëti sëriñ Touba yëpp ñu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal sëñ Bass Abdou Khadir macha allah ndax a ñun war nañoo am sax nag ay royukaay ndax duñ ñoo yebaloon ci ay kilifa te bañ demee ci kilifa ya macha ni nit ñu ak yére rek. loolu rek doy na lu ne kon lat am na lu ne fii ba pare kon duñ koy ñaanal yàlla lafal ko cat ndax kilifa gépp guñ ca dem rek soo ko nee lat jóob rek na mu lay ak yére macha allah doy na lu ne kon ñun foofa la sunu xel njëkk a dale ñu di ko sant nag bu baax ndax sagal nañu de ndax dama daan gis politicien bu fi ñëw bu élection jàllee nga fay sa portable mais lat Macky Sall rek ko moom bu nee dafa bëgg Macky Sall duñ ko koy nungul Macky Sall rek ko ñor dara ñor ko lu dul Macky waaye ñun ñiitam ñun Lat Diop rek ka ñu ñor fas yéene nag ànd ak ñëpp ubbil ñëpp sunuy port ndax ñun nag yaakaar naa ne gone goo xamante ne daa juddoo kër gu mag yaroo kër gu mag yaroo ci loxoy kër Cheikh Abdoulaye Lahat yaakaar naa ne bu yaatalut des na ko ko laaj. ma fas yéene ànd ak ñëpp ubbil ñëpp sama porte xam nga lu may lu ma bëgg ngeen jàppalee ma ko képp ku ci ku ma gis rek lépp loo xamante ne war nga ma ko laaj laaj ma ko lépp loo xamante ne lënt na ci sa bopp ndax xel moo yëmut waaye nag ma wëlbatiku di woo ñëpp. di woo ñëpp di woo senes bi nga xamante ne ñoom ay jàmbaar lañu ndax jigéen moom mënut dem saa góor bu ñuy tudd jigéen góor a tax ñu di ko tudd kon ñoo ngi leen di jiital ci nuyoo bi kenn du yéen. yéen ay jàmbaar yéen ay bete bete kenn du yéen yéen senes bi ndax yéen lépp lu ngeen war rekk yéen a ngi koy def fu ñu geesoo gis leen waaye jigéeni Lat jóob yi ci département Mbacké ak Touba géitam ah bañ nee way ba tey newuñu noo kon maa ngi leen di delloo njukkal di leen gërëmaat di leen santaat ndax lépp loo xamante ni rekk luy taaral bis bii la ak luy tax liggéey bi dox boobaak tey toog gi wuñu seen tànk teggiwuñu seen tànk tey teggiwuñu seen tànk ëllëg ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax ñoom ñëpp nag te bàyyiwuma kenn kon nag bis baa ngoog ah di daaru xuddoos surtout nag waa daaru xuddoos ñoom ñoo am problème sax nag bu dee dëgg ngeen bëgg a dégg ñun waa daaru xuddoos booye boobu ngeen jógee ngeen gembuwaat te waxtaanaat ci seen biir ndax ñun ñoon ñun lañuy fekk si ndax ñooy dalal gan ña ndax nag mbir mi dafa nekk daaru xuddoos mbir mi daa nekk ci xolub digg daaru xuddoos kon ñun lu fa jag ñu na waaye lu fa jagadi ñu na kon nag bu ngeen demee na ngeen góorgóorluwaat ñu teeru sunuy gan telal sunuy gan te xam ne nag yéen waa jigéen ñi daaru waa jigéen ñi nga xamante ne yéen a ànd ak Lat Diop kenn mënu leen a fay kenn mënu leen a fay man lépp dama koy delloo si waat ci yéen jàmbaar ngeen baax ngeen du beral nag spécial nuyoo aram bi tey mii dëkk ma fale daaru salaam mbàkke jàmbaar la te ñëpp xam nañ ni jàmbaar la kon aram bis seen bis la du bisub jooja du bisub daba saadi du bisub faat surang du bisub kenn du bisub jama saw